ngeen jëfati mbokki si di internet yi ba Sénégal actu de l'énergie actu du jour ñu dellu suwaat ak ki nga xam si nag moom moo di Pape Alé Niang li ci jot a fës nag dañ koy dooleek Pape Alé Niang kàddu yi mu yëkkati nag wax na nag élimination bi ñu bëgg a def Ousmane Sonko ba du doon candidat mais daal Ousmane Sonko bu nekkul candidat timit am na ko mu samp muy Bassirou Diomaye Faye te Bassirou Diomaye Faye nag bu ko sampee xam nañ ne daal. moom mooy Ousmane Sonko balaa midi rek élection yi dafay jeex ñu ne Pastef gagné ne li nga xam si ne moo di élection yi ci cadre du Pape Alé Niang ba tey nag mu yëkkati wax na nag Bassirou Diomaye Faye bu fekkee ne rek dana koy kale nag duñ ko kale ci droit ndax amul dara loo xamante ne si nag mën nañ ko ko kale bun koy kale lan lañ koy kale mooy ci jaay doole dong nag ndax mun ñu ko toppee dara loo xam si ne nag dina ko kale ba du mën bokk ci élection. élection présidentielle euh, ba tey rek di xam leen daal instant bi nga xam si nag Ousmane Sonko moo ngi ci kaso bi nag ñëpp foog ne rek du bokk élection mu Pape Alé Niang xam na ne Ousmane Sonko dafay bokk ndax ba tey daal amul dara loo xamante ne si daal man nañ kaa kale ba du bokk ci élection yi ndax xam na ne bu baax ba lépp lu nu def rek dunoo jaay doole ndax moo ngi éligible ba tey moom mi nga xamoo di Ousmane Sonko ci kàddu yi Pape Alé Niang ci kàddu yi Pape Alé Niang ba tey moom nag mu ngi xamle ne buñ bëggee éliminer ki nga xam si nag moom moo di Bassirou Diomaye fay eh, ci leen dongo rek laloo tax ñu koy éliminer mooy tapet gi nu tapet rek ndax bu fekkee ne am nañu fit rek eh, du sax jéem a éliminer ki nga moo di Bassirou Diomaye fay nan dem ci élection eh, yu 2024 ku man sa morom rek duma Pape Alé Niang yëkkati yooyu ginnaaw nag ñoom bi ñu ne dañuy éliminer kii ma di Ousmane Sonko te moom moomu rek saa sunu sëggee rek ci lang gi rek daf leen di daan moom mi moo di Ousmane Sonko kon nag bëgg jaarale waatee ci Bassirou Diomaye Faye ndax ñoom buñ ko bëggee éliminer sax mën nañ kaa éliminer Pape Alé mooy wax ba tey wax ne dañuy toog ba si yàgg na ah goos bi daal nañ ko éliminer rek ndax ñoom suñ ko bëggee éliminer du dara ci ñoom mais pour ñu éliminer ko moom mooy jafe ci sénégalais yi ndax jox nañ ko bopp ba tey Ousmane Sonko Sonko ku mu joxañ rek instant bi jeunesse su sénégalais bi fa leen jëm ndax xam na ne instant bi jox nañ ko bopp ba pare Pape Alé Niang yëkkati kàddu yooyu jëmale ko ci Bassirou Diomaye Faye ak moom mi nga xam si nag moo ngi ci kaso bi ba tey ba pare nekk candidat bu ex Pastef moom mi nga xam di Bassirou Diomaye Faye ginnaaw ba ne ili Ousmane Sonko rek dañ koy éliminé ba doon du candidat Ousmane Sonko joxoñ ki nga xam si moom moo di Bassirou Diomaye Alé wax ba tey wax na rek Ousmane Sonko moom moo fi nekk rek seul candidat boo xamante ne si ne nag moom moo fi wax sénégalais yi rek topp ci noonu te sénégalais yi ñoom rek lay neex ndax képp koo xam si nag politique seen rek bis boo ñëwee wax fi dara rek sénégalais yi ñoom ñooy neex wala ñoom ñooy ñëw wax dara na loolu du fi amee mais daal ñoom Ousmane Sonko lépp la mu wax rek ñoom dañ fay joxoñ seen baaraam rek dafay dem xam ne Ousmane Sonko njariñ la leen wax ci loolu Pape Alé waate ci candidat candidat bu Benno Bokk Yaakaar wax na rek ñoom euh, daal du éliminer benn candidat bëgg na daal élection yi euh, instant bi yu waxe yéen benn candidat rek moo fi actif moo xam si na candidat la mooy Amadou Ba euh, ginnaaw ñoom nag duñu éliminer seen candidat Pape Alé wax na ko wax na nag ñoom xanaa nag dinañ bàyyi Aly Ngouille Ndiaye ndax lim leen wax ci parrainage yi si élection 2019 bokkul woon ba tax ne kon Pape xam leen ne daal instant bi benn candidat rek lan xam na ne instant bi dina bokk bokk ci élection présidentielle yi muy candidat bu Amadou Ba muy candidat bu Benno Bokk Yaakaar ndax xam na ne ñoom mën nañoo éliminer candidat yëpp ba mu des candidat bu Benno Bokk Yaakaar kon nag loolu su ko amee lan lay eh, mel ne mooy ñoom bëgguñoo sëgg bëree mais daal instant bi réew mi fi mu toll bañ bare eh, bëgg bëree moom rek moom moo fi am ndax gis ngeen Bassirou fay Faye bi nga xam si nag Ousmane Sonko jiital na ko nag dafay wane na bëgg bëre bañ baax a baax na instant bi euh, ki nga xam moo di usmaan Sonko rek moom moo téye li nga xam moo di ëttub politique gi euh, fu mu joxoñ rek foofu lay demee ndax xam ngeen ne moom euh, lépp loo xam si nag def nañ ko jeunesse bi dañ koy toppandoo te jeunesse bi instant bi ñoom ñoo yor réew mi nga xam di réewum Sénégal lépp lu luñ ci dogalu rek du am ci loolu danuy jàll ba tey ci ki nga xam si ne moom moo di El Malick Ndiaye ginnaaw poste bi nga xamante ne si ne nag eh, def na ko nag jëmale ko ci Pastef wax na nag ñoom bu na xatal bi nga xamante si ne nag ñoo leen koy def lool rek day gën a yokk rek li nga xam si ne moom moo di seen doole eh, am pas-pas dëgg rek pour mën a taxawal élection présidentielle 2024 taxaw eh, bu yemb yemb ginnaaw nag ñoom ñi nga xam si ne ñoom ñooy di waa Pastef nee nañ tas nañ seen parti bi mais dafa mel ne ex Pastef moo gën a ëpp doole rek li xamoo di Sonko coalition bu bees ba tax na kon nag euh, ko li nga xamante ni si ne nag euh, moom moo di euh, lii nii di quittance quittance boobu ñu ko jox nag moom mi di Ayib Daffé dal génn na réew mi rek ginnaaw nag ba ki xam moo di maire bu Mbour Issa la nekk fële xam moo di CDC ginnaaw moom rek daal ba mu waxee na rek bi ñu vérifié xam na ne Ousmane Sonko bokkul ci lycée électoral yi ba tax na ñoom ñoo di waa CDC bëgg a jox ki xam moo di Ayib Ayib Daffé 30 millions yi fekk na Ayib Daffé moom génn na Sénégal instant bi rek yóbbaale na kitaas bi bëgg rek Ousmane Sonko kenn rek nu ko tere mu doon candidat élection présidentielle di 2024 ci loolu sax wàllum candidat daal kenn rek moom moo ko war a tere rek muy conseil constitutionnel ñoom rek ñooy xam ba xam kii dina doon candidat am du doon candidat ndax waa CDC ñoom seen yoon nekkul daal ci vérifier kii candidat la am du candidat ñoom leen rek la leen leen sant mooy nanu encaissé xaalis loolu rek lan leen sant kon nag lan moo tax rek ñoom ñu bëgg a xañ ki nga xam si ne moo di Ousmane Sonko ba daal moom kenn du ko jox rek li nga xamante ne nag moom moo di ab kitaasam ci loolu noonu rek ba tey Pape Alé Niang ñu dellusiwaat ci moom. moom yi di Pape Alé mu yëkkati waa ay kàddu wax ne rek ñoo ngi jëm ci nag élection présidentielle yow xamante ne si nag kenn wóorut joxoñ sa morom daal ne ko ee eh, fekkee ngay voteel ndax xam ne ni bu baax a baax ku nekk xam ne ni réew mi di doxee ba tax na kon nag képp koo xamante ne nag yor nga sa carte d'identité wala jëlee goo ko rek demal nga jëlee ko xam ne candidat bi nga xam si nag mu nga war a fal te yow yaa mën a changer réew mi yow mi nekk fi nga xam si nag moom moo di réewum Sénégal te am nga sa li nga xam si moo di di d'identité yow rek yaa mën a changer li nga xam si ne moo di réew mi kon nag ba tax na mënoo def lenn rek. lu dul dem jëli sa carte d'identité bu vote jotee nga vote ndax ah, askanu Sénégal instant bi sonn na trop ah, suñ ko waxee sonn nan ah, suñ ko waxul sonn nag ndax ñëpp ko xam ginnaaw nag ak ci dund bu méttee méttee koo xam si nag ñoo ngi koy dund fi nga xamoo di ci réewum Sénégal kon nag lenn rek ngeen ko war a xamee muy Ousmane Sonko sera candidat 2024 incha allah rabi Pape Alé di ko firndeel bu baax baax Ousmane Sonko day doon candidat. candidat 2024